Pape ñu waaw ñu ngi lay nuyoo di la nga jógee si bërëb bu sell bi muy bërëb maam sëñ Abdou Khadir Mbacke. te bi nga duggee ba yéeg nga am waaw sëñ Abdou Khadir mooy yilimaan yi yilimaan looloo neex yàlla. moom Serigne Touba. Mhm. mooy waajuram. Mhm. su ma juumul. jiite na jumaa ji lu mat fanweeri at. bis bii nag. day bis boo xay bi sëñ bi dara tollu ni moom ndaxte juróom fukki fan ak juróom-ñett mooy bis bi sëriñ Touba génne woon ñaare ku daa génn danga naan ñaanal leen ma mais moom daa génn taxaw ni maa leen di ñaanal moo tax Baye Moussa Ka ne ku màggal bisab tukkeem ba jihaar nga añ nga umra am nga yool wa wa xajjata man liman bi do fen daa wa xujjatan xalaamu xaalifan xadaa la daam waxan ca mat labul faw sëy ni loolaa waral màggal ga doon a may ni sëñ kenn du sëñ Touba kenn du sëñ Touba moom lépp nga yëg lépp rek ndaxte boo nee yëg naa lii yëg naa lii rek juum nga da ngay yëg lépp da ngay yëg lépp waaw yal na leen sa borom yàlla barkeel yéen ci barke sëñ Touba ak Cheikh Ibra barke Thierno Ibra Fati jërë ngeen jëf ah, papa ñu lay jaajëfal bu baax a baax fii la ëppee mhm. xanaa xanaa di am mbégte ci bis bi rek mhm. ndax tamit ne sëñ bi day dimbale leen rek moo tax mu mu def lii mhm. te bu ëllëgee la ñuy xam lépp ndax kii di Cheikh Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne mooy élimaani fii ak fanu jëm nañu ñaan suñu borom yéen a jëm am ci ñun yàlla nañ ko mënu ko mottaleel ci barkeb borom màggal gi kontaan nañ lool bég nañ lool barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla ngeen fi yàgg lool te ànd ak wér te yàgg koo teewee barkeb Sëriñ Tuubaa bisum màggal bi xanaa mbégte rek mbégte bég lool nag. bég lool kese bég rek. waaw ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax bég rek jërëjëf. waaw ñu gis na saa waay nga jóge ci màggal gi nga jóge ci bërëb bu tedd bi. Mhm. muy bërëb sëñ Abdou Khadir Mbacke ñu gis nga gis nañ ko kontaan nga daal. dëgg la wallaahi dëgg la dëgg la dëgg la maanaam yoonu sëñ Bamba bi moom. Mhm. maanaam yoonu yokkute la. waaw yoonu yokkute la man moom mënuma sax wax yàlla xam ne ko. damaa kontaan. Mhm. wallaahi rawatina ak bërëbu sëñ Abdou Khadir bii ma nekk nii waaw màggal ñun mën na ko arrêté waaw binoo ñëw màggal ak léegi xamuñu sax mm-hmm. kañ la xamuñu ko waaw duñu rek suñu waajur yi tàmmal nu mm-hmm. màggal maanaam ñun ñu judd si mm-hmm. xammee si gimmi si daal xam naa ne yoonu Sëriñ Bàmba bi daal man yokkute rek laa si gis waaw ñëw indaal sama euh, sama doom ji waaw sama beneen doom sëñ Fallu laa ko waaw man moom wax dëgg yàlla yoonu sëñ Bamba bi daal yokkute laa gis moo tax fu ma tool dama naan jërëjëf Serigne Touba maa ngi koy yëg bu baax a baax amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ bi yàlla nangulu ñaan yi ndaxte lii def di bés bu màgg waaw sëñ Touba dafa liggéey liggéeyam dafa feeñ kon ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla nangu ñaan yi yal na yàlla nangu ñaan yi lépp lu fi waaye ñaan yal na ko yàlla nangu ci barke bés bi barke alxuraan barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf kontaan nañ lool kontaan nu defal deug bi jox ko bay faali contant na ci trop ci barke Serigne Touba ndax suma suma su nak manam manam maanaam maanaam ñu mëna xolat ni deug bi doxale ñu mën ko doxale ñi ko diko solé solee yalla timit aussi ñu manam ñu xol ni deug bi doxé ni suñu bëggé ñu defee ko noonu waaw ndax deug yalla ko kontaan naa moom waaw ñu roy ci Touba mom bu ñu roy ci Touba rek senegal day jëm kanam barke Serigne Touba yalla yalla may mag amiin amiin kay kontaan naa trop wax dëgg yàlla. fii si barab si Abdou Khader Mbacke euh, fii la góor gi fii góor gi fii leen ko fii leen ko denc tey fii ko lu fi waaye maanaam ñaan mu nangu lu fi waaye maam tamit maam yéen ci lu baax mu nangu parce que nee nañ mooy ilimaani ilimaani donc yàlla yàlla dafa jàmm yàlla nangu ñaan si barki seen na Muhammad sallallahu alayhi wa